jërëjëf mbokk yi seetaan lii ngay seen collagen la muy lu baax lool ci der ci we ci karaw ci tànk lépp loo xam ni daanaka rekk nit soxla na ko ci dundam collagène daf koy accompagner collagène gi nag su demee ba benn diiruwaat dafay wàññeeku wàññeekum nag mooy indi ay melokaan woo xam ni nit ki daf koy yëg moo xam tànk yi di metti ndigg li moo xam bët yi lëndëm moo xam der wi commencé soppeeku mbir mi commencé ko jaaxal nag teewul moo ngi wut diw bu ne di diw saabu bu ne di diw lépp lu ci am rek lu mu bëgg yaram wi daal di tëgg sell rafet liis ndekete collagène bi mu manqué mooy waral li ni mel moo tax seen cabinet bio rahma indi leen collagène boo xam ni danga koy naan di ko jël deux fois par jour saay boo koy jël fii trois jours yow ci sa bopp di nga xam ni li ngay jël baax na ndax dafay feeñ ci sa der jaa ngeen jëf jërëjëf mbokk yi seetaan lii ngay seen collagène la muy lu baax lool ci der ci we ci karaw ci tànk lépp loo xam ni daanaka rekk nit soxla na ko ci dundam collagène daf koy accompagner collagène gi nag su demee ba benn diiruwaat dafay wàññeeku wàññeekum nag mooy indi ay melokaan woo xam ni nit ki daf koy yëg moo xam tànk yi di metti ndigg li moo xam bët yi lëndëm moo xam der wi commencé soppeeku mbir mi commencé ko jaaxal nag teewul mu ngi wut diw bu ne di diw saabu bu ne di diw lépp lu ci am rek lu mu bëgg yaram wi daal di tëgg sell rafet liis ndekete collagène bi mu manqué mooy waral li ni mel moo tax seen cabinet Biorahma indi leen collagène boo xam ni da nga koy naan di ko jël deux fois par jour saay boo koy jël fii ak trois jours yow ci sa bopp di nga xam ni li ngay jël baax na ndax dafay feeñ ci sa der jaa ngeen jëf